yàlla dimbali ko ci wax kon moom ndax gàddaay say bopp bàyyi adduna nga bàyyi jamono soxla la nga bàyyi lépp gàddaay lépp ci Sëñ loolu nag Sëriñ Tuubaa na ko ci lu bare bare ndax ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa rek làq na sa ngërëm Cheikh Abdoul Ahad ñi ma doon wax nga xam ne yàlla def ne seen daara ji ci ñu nekkam la sosoo woon mu joxewoon tur yi mu joxewoon ndigal yi ci nekkam seeroon na ko seereeloon na ko ne ko al muridu sadiq leetar bu mu bindoon sëñ bu say limaan ci ay yitte yu mu ko doon wax ci moom ne ko al muridu kon loolu doon sëkk ndax loolu sàkku suñ dund gépp kon moom sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad te ko ko xam xam ne Cheikh Abdoul Ahad dadaa wax naan plan ak positif dañoo nuroo waaye bokkut plan ak positif Cheikh Abdoul Ahad ku xam ne ak positif la kenn mësu ko mën a nax ci ci ci plan waaye moom dem na ba seere ko positif kon loolu suñ seere si amatu solo laam solo mooy seere ga ko doom Sëriñ Tuubaa seere ginnaawam itam Cheikh Abdoul Ahad moo leen digaloon ni leen fu sëriñ Touba xëyee fu ne na ngeen fa gonte fu mu gonte fooy na ngeen fa xëyee na ko ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxee woon ñoom de topp nañ ko topp ngeen ko ba desul leen dara ndax damay wax ne képp ku leen di sikkal da caa bàyyiwul xel ndax ki fi nekkee Serigne Touba kat yéeneen koy taxaw taxawaay boo kenn mënu ko weesu wala kenn fekku leen ca loolu ndimbal la ndax daayira yi bari na fi waaye boolewu leen ko dara du leen ko jaawale dara loolu nag mooy ndax moo leen taxaw nu jukk kon nag yoon woowee nga xam ne ci lañ leen tegoon taw musu musu musu ko wàcc yéen tamit Cheikh Abdou Khadir li muy gàtt gàtt fukki weer ak benn la am waaye ko ñëwoon ba cët daari kam ñëw siyaare si leen lu bokk siyaare yi ngeen ko def siyaare leen seen positif ak digg Sëñ Tuubaa Cheikh Abdoul Khadir tam noonu la ko ko daa seeree la sëriñ sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Saliou waxtu ne ma ko daa fàttali da ko daa wax ne ko isa ay qasatka xurubul ada fanab bi ila amilin summa nam saa su la yitte dabee rek noonu la ko sëriñ Saliou daa wax fu ko yitte dabee rek wala loo xam ne nee na ci xelam wala mu am ca lu mu bëgg tam jaaxal ko nee na bu ma la ko waxee rek la ma ci bëgg dinaa ko ci am mujj na dem ba daaray boppam bi sax lépp ci liggéey bi mu dénk ko wala lu muy dénkaane ngir fonk gum ko fonk ak doyloo gum ko doyloo ba ci kër ga ko suñ saali doon jël loo ci France yooyu yëpp xam ngeen ne manees na ne bokkutoon ci liggéeyam ab liggéeyam sarse wu na ba fees sarse wu ba dara day mel ne xajalaat ci dara sax mëntoo nekk waaye lu mu mujjee lu agsi rek sëñ bi dénk ko ndax loolu ne la ko waral mooy lu mu ko dénk dana ñoŋ te dana sàmm te lam ci bëgg dana ko ci am kon nag yéen na ngeen xam ne da di àll Sëriñ Tuubaa ginnaaw Serigne Saliou itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw dégg ngeen la mu ko seere loon la mu waxoon Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba mu ko seere bu géttu gay ne woon fee nga jàppaloo ci benn danaa dem jëli ko foofu la positif ak doogu yam te waxu ko rek yam ci waaye da koo jëf man mi dund ak moom diggante fukki at ñett yii ci xilaaf ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci xilaaf ak Cheikh Sidi Moukhtar Cheikh Sidi Moukhtar daan ko seeral di wax ne yée ñoom de li ma génn a yéem ci seen mbir mooy def lu baax sax yomb na waaye sax giñ ci sax ak way giñ ci way nga xam dara mënu koo soppi dara mënu leen wëlbateel jaxandaram kii fi nekkal Sëñ Tuubaa nag di Cheikh Mouhamadou Mountakha seen digg moom mbirum Sëñ Tuubaa la ndax moom li muy wax nee na dangeen a jug rek xelam dal ci yéen mu am yaqin ci yéen ànd ak yéen ba nëgëni te dara mosu sot waxtu nekk yéen a moom booba nekkagul Cheikh Mouhamadou Bachir nekkagul moom du démb tay la du tay démb la te waxtu nekk itam lépp lu ko itteel wala naan bu ma ko waxee aatale la ma ci bëgg dinaa ko tam loolu muy su ko kon moom suñu aatu day borom tawféex kon yàlla suñu borom dolli ay leeram rek te wóor na ma ne itam fa nekk moo fi gënal fii ndax jël na léppam jox ko suñu Tuubaa ba fàtte ak njabootam fàtte léppam xam ne àlli suñu Tuubaa la yitteem jëpp mooy lu Sëriñ Tuubaa ki fi nekk Sëriñ Tuubaa ma sa bëgg xalaat te lii lii fëkkaati bari na ci àdduna àdduna lii fëkkaati bari na ndax ku jug jëm ci lu baax ku ne am na lu jug ngir bëgg laa gàllankoor waaye yéen yàlla dimbali na leen ba ngeen gàddaayee ñëw fii bàyyi àdduna xam ko lool ba ñu ne ci àdduna gënuñ leen ko xam wala ñeen raw leen ca waaye ñeen dëddu lépp ku leen seen xam ne murid saadix ja buy dox ku leen fekk fii itam xam ne fekk na fi taalibe Sëriñ Tuubaa dama ko daa wax suñu aar wàcc loolu kenn xamut tuyaaba ji fu mu toll kon moom boroom tawféex la kon ñi koy ñaanal bu baax a baax tey koy fàttali ko di ci aw mu yëg-yëg ngir xam ne ki ñàkk ku rëy la ci yoon murit ndax ku jëloon léppam jox ko Sëriñ Tuubaa la te dara ak bëggam yëpp mooy ndamul Sëriñ ak bëggam yëpp mooy yëkkatiku yoon ak yëpp mooy nit ñi xam mooy Sëriñ Tuubaa te dara itam yéen yàlla dimbali na leen ba ngeen ñëwee gàddaay ba na gën kenn mosu leen dégg ci mbirum àdduna ay daje ngeen fekk ñetti président ci biir réew mi kenn mosu see dégg seen xalaat wala seen postion te kenn ëpp leen xalaat ci réew mi loolu ndimbal la kon yéen amu leen soxla ci àdduna Sëriñ Tuubaa rek leen tax a jóg li leen tax a jóg mooy xool ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa bëgg-bëggam. ak yitteem ak luy yëkkati yoon wi ak luy sàmm mbirum Sëriñ Tuubaa ak luy ñoŋal yoon wi kon nag li leen du Mouhamadou Mountakha di tudde yéen soldaari yoon murid ngeen bu yàggoon am na xalaat yu yu mu doon xalaat ci biir yoon wi ba mu agsee ci yenn dana ñoom ay soldaar la ñoom ñooy soldaari yoon wi loolu nag kon na ngeen xam ne am ngeen sasu rëy rëy keroog bi nga xam ne sëriñ Atou bàyyi ko na fi juróom-ñetti waxtu ci suba la fi bëggoon a xëy ànd ko yéen bu guddi waaye ni jamono toll moo tax sax mu bàyyi ba fukki waxtoo ñaar mu door ñëw waaye juróom-ñetti waxtu ba mu ko déggee amatul jàmm te nee na lam ci jublu mooy ànd ak yéen wétti leen dalal seenum xel kon na seenum xel dal bu baax a baax te ngeen rafet jot te xam ne seen liggéey bii liggéey Serigne Touba la moomu leen ko Serigne Touba ko moom am ngeen ndimbal nag ndax Serigne Touba mooy tànn ka ko soob mu liggéey loolu te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax ne. liggéeyal Serigne Touba la ci am solo mooy façon bi waaye na muy fexee ba mu am Serigne Touba noppi na ci kon yéen itam lii ngeen sosoon te ànd ko si yaatu taxawal ko mu agsi mu bàyyi ko te tey ngeen ëpp sax tey ngeen ëpp sax kat moom daa jàmbaar joo xam ne comme ne ci sa kanam boo bëggut a doxee da nga dox ndax daa doxloo ñëpp ndax day yemale ànd saa yow mu tàggu yow. kon nag bu demee ba bàyyi ko fi bàyyi leen ginnaaw na ngeen xam ne am ngeen am ngeenu saf saf yi mooy fa mu ko bëggoon a jëme ci xalaatam ngeen àndoon ko ak moom ngeen gën góor góorlu ba li Cheikh Mamadou mu tax li gën a yëkkati ko di gën a kawe waaye bu mu laal suuf mu loolu nag rafet nañ ci njort ndax dañ leen ko fàggul Serigne Touba leen ko fàggul njabootu Serigne Touba gi fi nekkoon fàggul leen ko ak agsi fii kon sëñ yuusu dégg ngeen li sëñ Muntaxa wax keroog ci yow loola soxlawut seen seere nee na fu ma gis sëñ aatu sama xel dem ci sëñ yuusu fu ma gisee sëñ yuusu sama xel dem ci sëñ aatu noonu la ko Cheikh Mahmoud Muntaxa waxee noonu la demee ci ñun ñii képp ku la séen rek xelam dem ci jëmmam te it wax naa la ko démb da ànd ak moom ci biir ànd ak moom ci bitti ànd ngaa moom ci sa jëmm ànd ak moom ci sa xol ndax man man naa ci seene ndax mosoo bëgg dara lu ko gàllankoor mosoo bëgg dara loo xam ne lu yàqu ci ab liggéey loola na kon da nga xam ne ba mu lay doyloo ak di leen doyloo yéen ñii ngeen seq liggéey ndax liggéey bi yéen ko bokk yéen ñëpp li Cheikh Mamadou Mountakha wax nag njiit mënta ñàkk ndax lislaam ko santaane ak julli ñëpp la ko lis la ko suñ borom sant waaye bu ñu àggee ci waxtu julli faaw imam am loolu mënta ñàkk ndegam yàlla def na nag ab dayre ku ne xam na ni baaxoo mboolooy àndandoo dajaloo tànn kenn ne kii lañ jiital ni mu demee woon ci yaatu ba agsi ci yow mi Cheikh Mamadou taxa joxañal la boppam kon loolu doonu digalu suñ tubaab waaye ñun na ci ndax xam nañ la bu baax a baax ndax xam nañ sa dëggu xam sa posté xam sa engagement sa digg moom ndax lu ma sa duggat du ca jiitu kenn mësula ca man dama la daa tooñ sa waxtu ne fu ma la séen ngir xam sa dogu ak sa posté ak sa njàmbaar kon nag dañuy soññ daayir bi yëpp waa daara ji yëpp ñu gën a góorgóorlu rek fexe ba liggéey bii nga xam ne sëñ aatu sumboon ko ngeen ànd ko yéen ñëpp ba mu agsi fii liggéey bi na gën a bir biri di gën a jëm ci kaw di gën a yëkkatiku di ëpp dogu di gën a am pëstéef ci jëm ci liggéey sëñ Tuubaa te xam ne kat moom dafa noppal ndax ku ko mas a xam ko ne xam ne ne waxtaan yi mu doon gën a mujj wax ak sëriñ bi maa ngi koy wax barki démb li ci ëpp jëmatuloon ci àdduna nañu nañu bu ñu sëñ bi fàtte ëllëg dégg naa ko ci mbokk Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ñi fi nekkaloon Serigne Touba itam di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Mokhtar ku ci ne teew naa ba tey mu wax na ko bu ma fàtte ëllëg moom kon xamoon naa ne mission bi jeex na te adduna noonu rek la ñii day ñëw ne fi ba seen mission jeex ñu bàyyi ko ñee ndax kenn saxu fi kon nag na ngeen góorgóorlu baax a baax. sëriñ bi nag nee na mi ci seen kanam ne ci seen ginnaaw ne ci seen rajo ne ci seen càmmoñ lépp lu ngeen nekk mu ànd ànd na ko yéen fas na yéen a gën leen a wéttali ndax loolu la façon ci seen digg moom naka jëkk waaye xam na ne nag la ak Cheikh Ibrahima Fall di waxoon Cheikh Ibrahima Fall ne ko Ibrahima waneelu yoon ndax lëndëm gu gën a metti gi amoon kat mu am ndax ka daa gis ba gisatut googu la dem moo gën mbett ki mës a gis kon yéen itam da ngeen a nekkoon ak moom mu ne ci seen biir ngeen di ko wéttilikoo di wéttilikoo Sëñ Tuubaa ngeen dem ba jëmmam gisatu leen ko kon nag Sëñ Tuubaa ngeen di wéttilikoo Sëñ Tuubaa mi ngeen di wéttilikoo nag lépp lu ngeen fu ngeen mës a àgg rek dooleem ak kattan moto tax da ngeen xam ne seen ji fii ndénkaanlu Sëñ Tuubaa la ndénkaanlu Sëñ Tuubaa rek la Sëriñ Mbàkke bu sooxoon ndénkaan loo xam ne loxoom ak bëtam du ci yomb naa yomb naa téye kon positif bi xam na ni mi fi sëriñ bi xam na ko yaqinam itam am na ci am na ci yaakaar ci xam ne fa mu bëggoon a jëmi liggéey bi dara lu ci yàqu day gën a jëm kanam kon ñu ngi yemale foofu wax ji di ko ñaanal rek suñu borom gën a dolli ay leeram amiin amiin te lim fi bàyyi itam xolam di ci gën a sedd xelam di ci gën a dal te xam ne loolu rek moo ci am asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Thank you.